yéenekaay yi. dalleen ak jàmm yéenekaay yu bari xëyandoo tey wàllu politique euh, Walf Quotidien xëy taxaw ci candidat yi ñu ngi tàmbale waajal dagaan baatu askan wi laata campagne ak ñu bari ci ñoom ñu ngi àddu ci Walfadjri euh, ci seen émission perspective 2024 euh, candidate bi di docteur Rose Wardini doonoon ganub émission bi wax na naka la fas yéene suqali Sénégal say bu falo bokk na ci dina taxaw jaamu yi soxlay askan wi mu ngi ci yéenekaay bi di Walf Quotidien commission d'enquête parlementaire ni APR def ba daanaka du moyu Karim Wade yéen cabinet ji la ñu bëgg a gindeeku ci googule commission d'enquête parlementaire ci assemblée nationale yéen cabinet yor yor gi xëy duñu gindi ci diggante Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye ne ànd bu yàgg bi dëgg la gannaaw bu Ousmane Sonko gisee ne munatul doon candidat ci élection présidentielle yi mu jël projet Pastef dal di ko jébbal Bassirou Diomaye fay ngir mu mun koo doxal yéen cabinet Tribune ne waa Pastef dox nañu wutali Bougane Gueye Dany mi a parrainage bi Pastef euh, tàllal na loxo Bougane Gueye Dany ngir mu dem fekk yi euh, Bassirou Diomaye Faye moom jiital Pastef ne samedi gi ñu jëm dina ci gindi askan wi ndax day xal yoonu boppam wala boog day dem jàppale ji euh, waa maanaam Pastef ak sen candidat di Bassirou Diomaye fay yéen ka kaabi di réew mi quotidien di ñu dégtal coow li ne ci commission d'enquête parlementaire bi waa PDS santaane ngir gëstu tuuma ya ñu teg ci ndoddu ñaar ci ay juge yenn ca conseil conseil constitutionnel yéen cabinet Sénat bi moom jot naa seetal wecc euh, conseil constitutionnel euh, daanaka amul lenn euh, ca lañ ko mun a tuumaal mu ngi ci yéen cabinet réew mi quotidien le peuple quotidien xëy waxtaan ak njiital Forum Civil Birahim Seck dikkat na ci corruption guerre gañu ne dugg na ca conseil constitutionnel ba tax na mu ngi dànkaafu kuréel gi boot ay magistra yu Sénégal du UMS naka la jàngate kayitu kalaame gi nga xamante ne waa def nañ ko ci assemblée nationale ngir sàkku eh, ñu amal commission d'enquête eh, parlementaire yéen a kabi di las ne eh, ci googule mbir sax plénière yi tey ji la fas yéene door jëm ci commission d'enquête parlementaire jëm ci ñaari ay ci ay ne ca conseil constitutionnel yéen a cabinet di nag mun naa jur njeexital ci réew mi bu ñu deful ndànk mun na nañoo dund crise institutionnelle mu ngi ci yéen a cabinet di las l'évidence ne bi le mbir sax tàmbale naa ñagasal diggante njiitu réew Macky Sall ak Abdoulaye Wade dina jafe lool ñu jubbowaat seen biir yéen cabinet d' évidence moo ñu ko yëggee yéen cabinet de quotidien lu ñu dégtal googu les commission d' enquête parlementaire eh, procédure bekk nañ ko lañ koy doxalee ba tax na laaj la gu sampu ca yéen cabinet gis ne assemblée nationale eh, daanaka amul eh, sañ-sañ jëm ci mun a clamer mbir ya fu mbaxana doone benn tey ji assemblée nationale googek règlement intérieur am buñ ca sukkandikoo rek plainte bu juge Ndiaye jot na dakkal ak neenal googu commission d' kër gañ fa samp yéen a kaabi di Sud Quotidien génnagul pencum ndaw réew mi eh, googu de commission eh, ñu fas yéene ko càmbar tey ji eh, jëm ci ñaari juge yu conseil constitutionnel yéen a kaabi ne àllarba dëgg dëgg mun naa jibee ca assemblée nationale docteur El Hadji Omar Diop bu UCAD gis ne assemblée nationale amul sañ-sañu amal enquête jëm ci dogal bi nga xamante ne moom la conseil constitutionnel indi ci élection présidentielle yu 2024 yooyu la wote sax Karim Wade daanaka moo sànq boppam ci double nationalité am waroon na ko teel a tàqalikook moom yéen cabinet dafa jàmpoon lool l'attaqué di e, jéego e, jëm ci e, génne Karim Wade ci nationalité bu France gamu amee woon yéen cabinet 24 heures ne Sénégal génnagul ci guerre li nga xamante ne mooy corruption mu ngi ne xas ci réew mi ba tax na ci téeméeri réew ak juróom-ñett fukk ci àddina gi Sénégal moo jël ñeent fukkeelu place ak ñetteel ba yéen cabinet kan moo fi mun a jëlee guerre kan moom mun a taxaw ngir Sénégal mun a tàqali tàqalikook li euh, nga xamante ne mooy euh, corruption euh, ba tey njëw a ngi wéy di de si xambin ci taax yi fii ci ndakaaru yéen kabi di la soleil ne ab taax ma batina démb fii ci xaar yàlla taxu ñetti étage juróom-ñaari bakkan ñoo ca rot am ci lu tollo fukki bakkan ak ñaar yu ca jële gaañu gaañu yéen cabinet ña dëkkoon ca taax yàq ak i tamit ña ca jot a am ci koo xamante ne dëkkandoo la ma ngay wax yëf yàq na mu demee bokk na ci ñam ñamu xam yëpp daanaka mujjee dañu ñàkk seen bakkan ci googule tabax jàpp nañ ne sax am na ci ab jigéen am na ci ñoo xamante ne góor lañu am na ci tout tànk goo xamante ne jot nañ ko caa sowe bilan bi daal boo ko xayma lu toll ci fukki doomi aadama ak ñaar yoo xamante ne jot nañ ci amee gaañu gaañu am na ci fukk ak benn ci ñoom yoo xamante ne ña nga ca lalu hôpital am na ci euh, ñi nga xamante ne jot nañ caa ñàkk seen euh, bakkan yéen cabinet ci anam yu doy waar la ñu doon euh, daanaka euh, gëstoo googule tax ba ay ay bakkan jot a feeñ am na ci ñoo xamante ne ànduñoo ak seen i bakkan yéen cabinet di stade xëy duñu dégtal Coupe d'Afrique des Nations 2023 ca Côte d'Ivoire li tax Sénégal ñàkk matcham diggante ba Côte d'Ivoire ba yem ca huitième de finale yéen cabinet bokk na ci tactique ba Aliou Cissé taxawal ci googule match ba ñaareel arbitre ba équipe nationale nationale eh, ba ku ñetteel itamit eh, ay kàngamu équipe nationale daanaka bés boobee wane seen eh, xereñ ci wàllu football rawatina ci seen wàllu mënin ba tax na Sénégal teel a toog ci bile kan la leen des mooy ñibsi ci Ndakaaru